kon ba tey li may wax ñu ngi bi leen ko toppal waaw di leen ko jàppal li nga ko noonu. woo ko woo ko woo ko eh. ba li may wax. Ah, li ma xalaat mu ngi noonu parce que oto Pintasio baa ngi noonu di droité kon li ma mu ngi am. kon Omar li ma mooy que ni yow résultat yi wàcc na. waaw li ma mën a Seydou jëlam oto pénitencier bi jëlam oto pénitencier bi ndax li ma li ma li ma njort te yaakaar ko te te fii ki bi mooy que ni Pathé mandat dépôt am na ndax oto bi droité na euh, te yaakaar naa ni du yàgg dara di ngeen gis ñu ma leen a jël ndax oto bi moom ñeri ñoom mooy jël yóbbu Rebeuss mbaa jël yóbbu Camp Pénal kon oto bi loolu mooy liggéeyam nan xaarandi oto bi nag ñan ñoo ci dugg nan xaarandi oto bi ñan lay yóbbu kon di xool Omar ana comme nii loo xam ne gis ngeen ko fii ci dakaar Buzz ma leen ko toppal rek dama naan bu leen lépp lu ci message lu am lépp luy lu lu lu lu war a leeral bu ngeen taxawee ci Dakar Buzz faral wan leen ko ci anam bu sell anam bu wóor anam bu leer nanu xaarandi nanu xaarandi ba xam oto yi ñëw na droite oto yi ñëw na droite kon bu leen bougé yaakaar naa ni léegi ma wan leen li nga xam ne moom mooy li xew gis ngeen ko noonu. muy lu doy waar xam daal ah moo amagum fii ci tribunal bu Ndakaaru oto baa ngi noonu oto baa ngi noonu daal nanu xaar waaye daal nanu ñaan. waaw nanu ñaan yow say wax jari muus la. waaw. Ah, bala nga koy weddi da koy jeex ba noppi. Ah, ah, ba nga waxee am na information bu wàcc. wax dëgg fa yàlla dama ne Fadel ay waxam dama koo ragal. ndax xëyul rek di waxantu. lu mu wax xam na ko. mais lépp loo xamante ni Fadel mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci àddu rek am na ci lu ko leer. muy lu am solo loo xam ne yaakaar naa ni du yàgg dara ah, ah, li may wax dinañ ko firndeel ndax gis na ni ndeke lañ wax loolu rek nga gis auto pénitentiaire bi daal di droité daal di yuuxu taal alaan bi ñu ngi xaarali nag wàllum génne bi yóbbu leen ban heure lay doon ndax dañ leen di génne léegi ndax da leen di yóbbu léegi ndax da di bàyyi ba ngoon waaye loo ci mënti dégg daal mooy que ni ah, xam naa ni. Euh, ñi ngi commencé defaru euh, pour mën a organiser pour xool ñoom nu ñuy def parce que daal loolu daal lañu jàpp ne moom moo amagum fii ci ci ci biir tribunal bu Ndakaaru bi waaw ah, ñuy xaarandi ndax comme dañ na wax loolu tam ñu ngi ko topp ba xam loolu lu nu wax euh, lu wér lam lu wérul lu weer waaye jot na ni loolu moom lu am la ndax yaakaar naa ne Dakar Buzz mi ngi liggéey liggéey boo xam ne ah, yàlla nga ko ciy suturaal kon yàlla nañu yàlla gën a taxaw jàppale nu te defool nu ndam ci liggéey bi mais daal doy na waar doy na waar ñu ngi xaarandi ñu ngi xaarandi ñu ngi xaarandi bu baax di xool ah, lan la enquête bi génne ba tax loolu ñu wax loolu muy lu wér ñu ngi xaarandi ñu ngi xaarandi daal en tout daal ñu ngi fii bu leen bougé xaar leen fii ci tribunal bu Pikine ñu naan tribunal bu Guédiawaye lépp lu ci am dina leen ko wan à temps réel ndax Dakar ba boobu léegi mi ngi ciy liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu bu bu équilibré la liggéey bu am solo la liggéey la boo xam ne yaakaar naa ni ah, ah, làmbatuwu ci kon ñi ngi ñaan suñu borom dafa jàmm ci réew mi su moom defal na sutu rek waaye Seydou fixel ma buntu tribunal bi rek comme ça ah, dara bañ laa rëcc ndax xam naa ne ak lu mën a am ñoom bu ñuy génn fii la ñuy jaar ak lu mën a am bu ñuy dem fii la ñuy jaar kon fixel ma foofu rek ñu mën a xam exact lan mooy problème bi ñu mën koo taataan pour jël koo jox ñaan internet yu Dakar Buzz ndax ñoom kat bëgg na noo xam li xew ci réew mi waaye bëgg na noo xam li Dakar Buzz toll ci liggéey bi ndax li ma naan liggéey bi toll na foo xam ne Dakar ba yaakaar naa ne gis na liggéey bu ñu ci liggéey boobu ba léegi ah, ah, du du ndékki du añ xam nga muy du guddee lépp rek ngir wan internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers Dakar ba ñu xam ni liggéey fii la toll xam nga bu si kanamee tuuti xam naa du ñàkk bu dee dem day am ñu ngi leen di boo xool tata bi fi mu gaare moom tam waaye moom léegi mu dem ndax xam naa ne tata moom dama ko mere ndax xam naa ne euh, moom day wuti de day wuti versement taxawaayam bi du yàgg ndax tata bi du yàgg ndax day wut day wut versement day wut versement oto pentas oto pentas ba waaw dem na dem na waaye oto yi ne ci biir bari nañu te xam naa ne bu desee lu dul dem rek lu leen yóbbu du leen jaaxal ndax li fi ne ci ay bari na te yaakaar naa ni ah, ñoom looloo ko tax a jóg waaye di masawaat paate nga xam moom mooy Demba Demba ñu ngi koy masawu démb man ak yow liggéey nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne euh, ci ci dox jàmm ndax li ma naan Amina suñu sœur la donte maa ngi moom miinante wu na noonu mais le fait que mu nekk euh, suñu concert di liggéey rek suñu sœur la Demba suñu frère la bay donte miinu ma Demba nee naa la ba Demba ba dee maa ngi koy romb gauche à droite te xaw ma ko xam nga parce que ah, ñoom mën nañ laa xam te du leen xam parce que fii sa tur di yegg sa keneen sa tur du mën na faa bañ a yegg waaye muy loo xam ne daal ah, tey euh, gis nañ ko di ci sant yàlla daal di ñaan daal ah suñu borom gën a leeral yëpp waaye li may waxee yow noonu ah, am na oto buy ñëwaat bii nag commune de Guédiawaye la oto bu deful dara la fan la jëm. waaw waaw waaw waaw waaw dafa am solo ndax ndax ndax tam tuuma daa métti te bul la ah, borom kab bi dem ba may préciser mooy boroom kab bi kon ah, nanu xam ni tam kii def loolu tam juumte na te démb dox nañ ay tànki jàmm. pour mu ma xam ne moom it daa juum euh, loolu lépp ñu ngi ko doon def euh, tey ji waaye yàlla bi ñu sutural ba ñu ci avancé bu baax a baax paate tey euh, ki nga xam ne mooy dem ba ñu tuumal ko tey loo xam ci moom waa xam nga tuuma dafa metti te yow fa mu yegg du man yeggu fa te ñun ñëpp ay doomu Pikine lañ ñun ñëpp ay doomu ginnaaw raay lañ ba tuuma ji naree jub man def naa ci sama warugar ba tuuma ji sore it def naa ci sama warugar ndax li ma def defuma ko pour buzz def ma ko pour leen dama ko def rek te yàlla tax def ko tamit ni ay doomu ginnaaw raay lañ def ko tamit ni lépp loo xamante ni lu ñaaw xajul ci suñu diggante ñun ay ñun ñun ñun ay pikinois ba tax na man pour man borom kap boobu ñuy wax lépp loo xamante ni ah ndaw soosu doon na ko wax ci ci ci ci ci digganteem ak ah, police bi njuumte la woon démb nag ah, déjà am na jot ay quelques kaddu yoo xamante ni jot nga ko waddal mooy dox nañ ci première pas yi te premier pas yi ñu ci dox euh, wax dëgg fa yàlla euh, Fadel jaamu yàlla la ndax jaamu yàlla weesul nga fekk foo xamante ni kawteef mën na faa am wala coow mën na faa am nga jóg dox ci tànku jaamu Fadel comme niñ ko xamee ci yow wax dëgg fa yàlla ko boo ko defee def nga li nga xamante ni miin nga ko lool mais def nga li nga xamante ni yàgg nga ko def waaye tamit kenn du Lamine Kane mi nga xamante ni ah moom moo ñu woo ba biir këram ñu toog waxtaane ko ak ki nga xamante ni moom moo di nijaayu Amina waaye nag dafa am leneen loo xamante ni moo am ci diggante mooy borom kap boobu nga xamante ni ñëpp tafoon nañ ay ay photom di ko waxtaanee ku ci nekk naan borom kap bi dafa bokk ci ci ñiy jël wari bi ñi naan dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël tuuma gi ma ne ma ne tey ji borom kab boobu bu baale di am. Pathé mhm. ñu ngi may xamal ni. Mhm. message ba doon sikki sàkk wàcc na. Mhm. ñoom sept personnes yëpp placé nañ leen ci mandat de dépôt ba ñoom tey jii rëbës la ñuy fanaani loolu muy kaddu yu wérte wóor yoo xam ne. ñi ngi may xamal ni kii di nabu la njëkk yéegal euh, def li ñuy def waaw yéegal par benn par benn ba sept personnes yëpp épingle nañ leen actuellement seen guddi gu njëkk tey mooy fanaan ni rëbës te du yàgg dara ñoom dégg leen gis ñoom ñu fexe leen waaw ñoom daal loolu ba information bi kon Dakar Buzz mu ngi noonu ñooy dem noonu ñooy dem noonu ndax ñoom ñëpp mandat yëpp suñu mandat ñoom ñëpp place na si mandat dépôt ñu ko noonu Seydou oto baa ngi noonu résultat yi wàcc na li wér te wóor mooy ñoom ñëpp placé na leen suñu mandat dépôt ñi ngi dem rëbës muy seen guddi gu njëkk ña nga noon ci oto ba ña ngay dem ña ngay dem moo tuur muuru noonu moo muuru noonu ndox ci biir ña nga jëm rëbës ñu ngi noonu jëm rëbës ña nga noonu jëm rëbës ñu ngi noonu jëm rëbës gis nga ko noonu naboog si naa ko ci oto bi kon loolu mooy peine bi allo d' accord nga noonu Seydou résultat yoo wàcc nag yëf yoo wàcc na mandat dëpp rek teel ma Seydou ma wiiri ne waaw oto baa ngi noonu di dem seedu oto bii lañ leen dugal am dagal ma oto bi oto bii lañ leen dugal ñu ngi noonu jëm rëbës ñu ngi ni oto bii lañu jëm ñoom ñëpp set personnes mandat dëpp lañ jëm ña nga ca biir ñoom ñëpp ñu ngi noonu mandat dëpp la yóbbu nañ leen am dagal ma oto bii ñu ngi noonu di jëm rëbës kon ñoom tey 100 mètres la fanaani coow li mu ngi noonu ñoom ñëpp kon li ñu doon xalaat mooy jàpp na ni ñoom ñi ñoo rey ki nga xam ne moom mooy avocat baa ngi ne suñ ko mënoon a am nag kon ñoom may ma dem damay taxaw ñii tey ñoom ñoo teel ma ñoo ko noonu Seydou gis nga ko gis nga ko noonu hmm. euh, Seydou gis nga ko noonu tey am ko réaction ah mu waaw Fadel comme ni mu ko waxee man damay wax ay ay ay waxi Fadel jali muus la soo déggee ma ne jali muus la mooy saa su ne heure boo ko laalee dañ ci gis lu la naqari mu nekk nit koo xamante ni tey information yu muy joxe juste et vrai lay doon ñu nekk nit koo xamante ni tamit euh, man ba mu ne ba mu ne bërët di àddu ci li nga xamante ni moo di mandat dépôt bi dafa def loo xamante ni dama ci tiit torop mais gis nga ma nga noonu am na ko muy waxal wax naa ak moom waaye. déggoowul ak kooku mu mel ni ñu continué waat dem ci keneen ah, ma ngay wax ak ñooñu. waaye mu nekk mbir moo xamante ni damay wax ni sénégalais yëpp bettuñu ah, amuñu ci mbetteel waaye tam mu nekk mbir moo xamante ni tamit képp koo xamante ni dégg nga ci mandat dépôt rek ah, amoo ci mbetteel coow la boo xamante ni fattoon na nit ñi sonoon na ni ñi dugalal li ay mbalax lay def de waaye fayal mbalax yi yow voilà waaye xaw naa yàq sama nopp yi mu ngi noonu mbir la moo xamante ni yàgg na ci yëf yi. sëñ bi sëñ bi ñu waaw lii dem kay parce que am benn parce que lii lépp teel teel a léegi na ko dëkk teel ba sax teel ma léegi nag léegi ngi daw parce que moom it. fil bi xaw ma sax na muy lu am solo loo xam ne tey lu doy waar loo xam ne tey gis ngeen ko tey résultat yi wàcc na Seydou moo ñoom ñëpp njëng ci ah